te état am na capacité xam kenn ku ci nekk li nga am ci banque yi. état xam na ko. tey jii état état mën na mën na mën na topp xaalis bi sax ba extérieur loolu yëpp mën na nekk ko mais su booba euh, soit ñu ne la ñu joxe benn forfait benn forfait boo xamante ni boo ko joxee dinañ na di nga am sursi leneen li ci des nga koy joxe par euh, par. wala euh, wala ñu ne la joxeel temps pour cent. après li ci des ñu comme bu ñu la tëjee du am njëriñ ñu le maximum de xaalis bu ñu mën a récupérer ñu récupérer ko parce que tëj nit ki tamit te mhm. fekk ni bu doon Chine nag moom dañ lay rey wax ji jeex <laughs> ñoom dañ lay éliminer benn yoon. non non parce que ñoom corruption ils ñoom euh, pour ñoom tu es pour la communauté quoi. Mm, parce que euh, parce que am na yoo xam c'est criminel yow naka ngay imaginer un certain type am deux cent terrains benn nit Sénégal ay 600 ay 600 terrain naka nga te maag ñoo ngi bëgg benn ñoo ngi ñoo ngi bëgg a dee yoruñ dara mais c'est c'est criminel ça c'est criminel ah déclassifier ay ay ay ay espace ay hectares ba pare séddoo ko ñoom politiciens yi ñoom mm. seen biir c'est quoi ça mm. jaaduwul jaaduwul c'est-à-dire yooyu yëpp c'est criminel ñooñu mais mais mais mais il va falloir aussi que je termine je vous avais dit oui, il, il nous minutes il nous <laughs> reste 10 minutes desuñu c'est-à-dire les dix minutes là. Ah. dama ko war a dox course c'est-à-dire au fond war naa arrivé foofu à euh, à trente. d'accord donc est-ce que mënu ma tàggoo. da ngaa bëgg a yeeweeku da ngaa yeeweeku. je ñu ngi leen di xaar ci njëgu dund gi ak njëgu loyer bi am ngeen ay solutions yu concrètes le débat a été très intéressant on avait dit à chaque ministre de nous proposer fana loolu. Euh, président wax ak premier ministre. Euh, waaw benn plan bu nga xam ne ak en accord avec les acteurs. parce qu'il sert à rien comme ni président Macky Sall defoon commerçants yi rebelle wu mu indi coow bu ko defee ñu yokkat mhm. quand la solution devient le problème loolu il faut l'éviter il faut que ñu wàññi wàññi bu nga xam ne c'est conséquent bu nga xam ne wóor na lii ça va être durable et ça va être supportable et pour les commerçants et pour le peuple. Mhm. wàññi moom mënut a ñàkk a nekk fokk mu am. d'accord ce sera la dernière question bi dem gars yi ñu ne dangeen waxoon projet bi prêt à porter la da ngeen di ñëw rek teg muy dem. waaw mais boobu ba tey nee nañ gisaguñ projet waaw gi gaa yi ñuy wax loolu bëgg naa projet bëgg naa ci répondre gaa yi ñuy wax projet waaw waaye waaye nañu bàyyi di wax ay baatu tubaab projet mooy dama projeté ça vient du verbe projeté mhm. su ma projeté dem Thiès ma départ eggaguma Patte d'Oie ma gis ni ka gis ni projeté naa dem Thiès dagg na route Patte d'Oie bi du ma defar route Patte d'Oie bi soogaa jàll loolu rek la fi mu ne pono yi crevé munoo tëb rek <laughs> voilà waaw tëb rek ni projet bi egg Thiès munul nekk je mhm. projette d'aller à Thiès mmh. maintenant j'ai pris mon départ mesures yi ñu jël dix mesures yi mais c'est le départ du projet mhm. ñu naan non ana projet ba na projet ba projet bi du nit kuy taxaw ñun la mi ngi nii il faut que ñun di xam loolu je suis très à l'aise par rapport à ces questions là bon maa ngi tàggoo waaw ñu ngi lay gërëm di la gërëm di la sant di sëriñ euh, jawriñ euh, vraiment il a un travail et nous continuons à te et à supporter li nga wax c'est extrêmement important projet boo ko accompagner ba muy commencer da ngay ñëw ànd ci projet bu ko defee liggéey bi mën a ñoom mhm. ñu lay gërëm di la sant également les questions sont très pertinentes vraiment c'est un plaisir que de revenir ici parce que bi ma dee mujj fii defe naa mooy bi may wax ni fokk ñu gagner mhm. comme gagner nañu nag léegi nañu poser les mhm. invitation ci club des bi on le fait tout de suite moi su ma demee je t'envoie le ñu ngi lay bu baax a baax secrétaire général adjoint <laughs> moo nekkoon suñu gan tey euh, ci euh, Sénégal matin ni ngeen ko gisee nag dafa am ay engagement euh, yoo xam ne daf ko war a respecter ñu nangul ko ko également donc mu yeweeku mais jawriñ dañuy wéyal waxtaan bi mm-hmm. peut-être ci taxawaayu tey président Bassirou Bassirou Diomaye Faye euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy li sénégalais yi di xaar am na ñu jàpp ne yëf yi dafa yéex effectivement ci la ñu tolloon d'ailleurs ak Birame Khoudia naan projet bi euh, yaakaaroon na ne dañu ñëw rek mettre ko en œuvre est-ce que yow comprendre nga li ñenn ñu tuddee lenteur jamono yi que ne mënoon na fi gën a gaaw bu ñu ko méngalee ak li amoon su sous le président Macky <laughs> parce que li may ragal mooy. ak président Macky Sall dañu ñëw def lu gaaw. mais fi mu mujjee mooy lépp yokkuwaat. waaw <laughs> c'est vrai. Eh, mais bu fekkee ni dañu war a. ñëwaat ni woon daanaka fa mu nekkoon bala ñuy wàññi sax daf ko romb. donc bañoon a wàññi benn instant daf ko gënoon waaw ça c'est nelawal ñu nelawal population bi. Hmm. comprendre nga yaakaar loo leen ba pare à la fin nànk nànk nànk nànk ngay yokk ba mu gën a cher fa mu nekkoon. te vraiment bëgg nañu bu fekkee ni état bi day def euh, day def benn action. pour euh, wàññi dund bi. muy ceeb bi diwlin bi ndox mi courant bi suukar bi meew mi yooyu nga xamante ni mooy les kii de base bu ko xasee ba wàññee ba ñu apprécier. Mm-hmm. vraiment mu bu wàññeekuwul waat mu bañ a yokk. <laughs> te je pense que loolu pour ñu am ko foofu mu ànd ak ay mesures. foo mu ànd ak ay mesures yoo mm. xamante ni euh, su boobaa ci la ñuy doog mën a am loolu parce que tamit yow mënoo wàññi wala ngay yokk loo xamante ni contrôlé wu ko mm. quand même parce que dafa contrôlé wu loo ko mm-hmm. boo lenn rek nga mënoon def mooy kani euh, parce que euh, taxe yi état mm-hmm. moo tax produit denrée premier alimentaire yi cher léegi mm-hmm. état est-ce que bu dindee taxe yooyu dina fay ay emploi yi yooyu yëpp c'est à voir. te bu fekkee ni état parce que lenn rek la état mën a def muy subventionné. Mm. Euh, subventionné euh, matières yooyu. Mm. pour ñu mën a yomb. est-ce que état fekk na Sénégal Macky Sall wàcc ko ci état boo xamoon xamante ni am nañ ay réserves yu war a mën a subventionné euh, ci les denrées de première nécessité. Mm-hmm. c'est à c'est à c'est à voir quoi. donc euh, ma li may demander mooy bon population bi nañ gën a patience un pa patient ñu ñu may état bi ñu harmoniser organiser après je pense que ils sont conscients que ni sénégalais vraiment ci loolu lañ leen di xaaree quoi. Mm. parce que seen méthode yi mën na bañ a bokk quoi mais méthode Macky Sall ak méthode jam Diomaye mën na bañ bokk quoi. mën na bañ nekk benn. alors leneen li ñu leen di xaar tam mooy naka la ñuy def ak ñi akimu woon suuf si on entend des autorités yoo xam ne ay hectares et hectares lañu ñu am ñi ay deux cent ñi ay six cent terrain jëwriñ loolu c'est un problème. ñooñu dañ ko war a nangu rek bàyyi leen ñu dem wala naka lañ war a doxalee ak ñoom. non simplement que dañ ko war a nangu ba pare dóor leen ay pénalité bu fekkee ne ñoom séddale bi séddale bukki lañ ko def. Ah, mais ki leen sédd nag. Macky Sall dañ koy jëli man Macky Sall moom ma je ko pour ñu jëli ko moom. Eh. tëj ko ci kaso bi ko vraiment Macky Sall moom ah vraiment pour ma dañ ko war a jëli. te te man sunu ex président yi Sénégal yëpp pour man li ñu leen di fay par mois dañ ko war a dagg. Hmm. parce que xam nga problème mu foncière bi mu ngi commencé ci jamonoy parti démocratique sénégalais ah. fa la commencé quoi hémorragie bi. tu vois moom moo ñëw fekk euh, réserve bi ñu bàyyi woon réserve foncière bi ñu bàyyi woon Sénégal yëpp ñu. séddoo ko ñu seddoo ko déclassifié ay hectares. yoo xam ne fu mel ni bande de nga xam ne déclassifié ko danger bu mag la ci environnement bi. mais foire bi nag mais ah, foire foire moom kenn waxatu ko moom. foire moom foire de foire de. foire demain le directeur général du CICES sera là. ah oui j'aimerais bien être là quoi quand même j'aimerais parce que eh? moom euh, je souligne je donne un avant avant yi mhm. yàgg na alerte man personnellement mhm. alerté na ci sama micro mhm. euh, ci foncier bi niñ koy daggee foofu ak danger bi mu représenté même pour le CICES e mais xam ak réserve boobu li mu doon jariñ donc loolu yëpp DG CICES dina ci indi leeral demain il sur ce plateau incha allah te li ci gën doy waar mooy xam nga